哎， cirë ngeen jëf dëkkub Seydi Hadji Malick Sy ba di Tiwaawoon fa la Sud Quotidien yeewoo tey yéeral xët mu njëkk journal bi ay waxtu yu néew dox suñu diggante gàmmu gi waaye yéenekaay bi gis ne na ca Tiwaawoon nit xajatu fa foo sànni mbàtt mu tàkk démb ci alxames ji moo ne woon tëjtal burdu bi nemm ke nañ fayit way politiciens yi ne bari nañ fa ay tànk lu soxal wàllu kaaraange gi sud nañu caaxaane ko benn yoon ñaari junniy takk der ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn la fa police yóbbu commissaire Abdoulaye Diop directeur sécurité ne jot nañoo tegagum loxo lu tollu ci juróom fukki fukki nit ak juróom di ay nit yoo xam ne gàmmu si wuñu waaye dañu doon ras si dem sapeur pompier it yéenekaay bi nee nañu des ñu ginnaaw ci matuwaay yi ñu ci gàmmu gi ñeenti téeméeri pompier ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom la ñu yóbbu ca Tiwaawoon boole ko juróom fukki wotey pompier ak juróom l'observateur xëy ñun ci cahier spécial bu mu def ci gàmmu ren gi di ñu wax lenn ci mbóoti tarixa Tidiane page 4 ba 11 lépp yéenekaay bi ci yoonu Tidiane ak gi la ko yamale li tax Seydi gi nga xam ne bi Maodo wàcceeb liggéey ci kàddu yu mu nangoo ci soxna Aminata Si mu leen di wax na waajuram wa Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu doon defee gàmmu lépp mi ngi ci l'observateur l'observateur dem na ca Njaasaan dem na ca Medina Baye la tribune moom ci Maodo la xëy dem di Seydi Aj Malik Si moom la xëyee topp ay tànkam wax ñu lu bari ci dundam ak ci jaar-jaaram ñu jaare fa xooli coowal petro li la nee nañu Souleymane Ndéné Ndiaye mi doyen des six woolu woon démb ngir la turbine zil ndey na nee na convocation bi jaarul ci yoon convocation sans objet la te moom amul jotug di dox ci yooyee avocat la premier ministre la woon ci xam na bu baax convocation bu tege ci yoon ak bu ca tegewul mu ne li tax ba bi ko alkaati division investigation criminelle yi woolo woon mu demoon wuy ji leen ca woowin wala dañu ko convoqué ci yar ak i teggin ak ci kaw gëdd ak dayo bi mu am ci réew mi ka wuy ji woon di siis di dégg Pape Massata Diack doomi Lamine Diack ji ñu dégg ne ma nga woon démb ca bureau doyen des six journal Source Wa ngi ñuy leeralal la ko fa yóbbu woon la mu fa wax ak la mu fa jële ab awokam di maître Moussa di ñu wax ci Source Wa ne ab kiliyaanam bi mu jàkkaarloo ak doyen des mbooleem li ko justice bu France di toppee lépp la weddi te lu mu ci weddi nag dafay génnee preuve yi joxe journal bi nañu Pape Massata ba muy wuy ji walis bu te laaj yëpp mi ngi bàyyeekoo ci justice bu France li nar ñuul ci soow mi rek L'Obs nee na ñoom moo di moom Diack mu ndaw di Pape Massata Diack double inculpation mi ngi koy yot ñu waaxu dem ci Les ko maître ay Tall Sall mooy léegi am te mujj ko fa bàyyi dem jiite ji conseil économique social ak environnemental maître Aïssata na ko fa président Macky Sall moo jël dogal ba démb moom Aïssata Tall Sall borom oser l'avenir journal bi nee nañu Macky Sall ci réew mi mu di ko gàntal li mu nangu tey nag mu di poste envoyé spécial bu président ministre bi ñu dindi ci réew mi tax na mu bari intérêt léegi nag ni mu ko defee woon atum moom maître Aïssata Tall Sall noonee koy defee waat mu di wan ginnaaw ab cabinetam te nekk ci soxlay réew mi la nekkaay nañu moom maître Aïssata Tall Sall ndombal tànku député la mu yore woon ci assemblée nationale mënatu koo yore ba léegi ndax li ñu ko fal ba tax na joxe na ko ku ñu naan Soda Mariam Ndiaye moo ko remplacé honorable député Soda Mariam Ndiaye mi wutu maître Aïssata Tall Sall ci assemblée nationale laas ne nañu mooy léegi député bi gën a doon xale ci assemblée nationale mbocc la 27 ans la am di ñaar fukk ak juróom-ñaar li am ci xët mu njëkk surna bi benn jaaykatu café Touba ca yëmbal moo bett jabaram ak benn ñuy def yëfi saay-saay ci kaw lalam waa ji jël aw mbolde dóor ko vigile bi